Pas de Dieu, pas de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pas du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Mouvement bi mu ngi def premier service am euh, en fin juillet 2017 donc ci euh, semaine bii nii. le 26 27 et 28 mu 72 heures yi nga xamante ne la ñuy féete sept ans d'existence jeune chrétien engage jeune chrétien engagé nag mu ngi nekk mouvement bu nga xamante ne mu ngi œuvrer pour paroisse bi parce que depuis suñu début ba léegi jot nañu def ay réunion yi nga xamante ne dañuy dajale ay jeunes pour servir suñuy paroisse si kaw loolu noonu moom ay services yi nga xamante ne moom la gars yi gën a ràññee mooy di gunge cortège funèbre parce que daan nañu gis si euh, suñuy enterrement dañ doon jël trop de temps pour yegg cimetière si kaw loolu noonu moo am groupe de jeune bu nga xamante ni ñoom ñoo formé wu jël volontariat def premier service mais depuis lors gis nañu que loolu noonu euh, paroissien Saint-Paul yi paroissien Sénégal ñëpp ñu ngi koy magnifier quoi si lancé yooyu noonu seen encouragement la ñu topp si biir loolu ñu continuer ay ay réunion tënk ay objectifs yi nga xamante ne pour suñu paroisse gën a jëm kanam parce que ci kaw loolu noonu gis nañu rassemblé na ay brebis égarées yi nga xamante ne ñooñu dañaa sori woon jàngu bi mais ci ndimbalu Christa bi ñoom identifié wu nañ ci mouvement bi ba ñëw rejoindre te ci biir rejoindre boobu noonu ñu ngi màggal seen ngëm à travers service suñu dem à travers suñu programme annuel par rapport ak euh, ki ñuy dee di amal formation liturgique yi ñuy dee di amal par rapport ak mees yi par rapport ak organisation en interne parce que nit bu parewul mënoo respecter sa kàddu engagé bi quoi donc ci kaw en gros loolu moo nekk suñu taxawaay si biir paroisse bi gën a jàppale communauté bi pour ñu gën a dund seen foi quoi. Euh, heure messe mën nañ taxaw gérer messe bi ket yi du genre affaire yooyu après bu ñu demee si maison mortuaire yi cimetière mën nañ gérer corps bi taxaw ci kanam devanture bi bu ñu ñëwee ci maison bi. dinañ gérer tâche biscuit yi ndox yi ñu servi añ yi bu ñu paree ñu prière def suñu bénédiction daal di ñibbi suñu taxawaay ci biir mouvement moom amul différence parce que ñun ak góor yi même pied d'égalité la des fois am na rôle yoo xamante ñun daal mën nañ wax di tali bi dañuy ëppale rek. mais apatali yi moom liggéey bi ñoo koy bokkoo amul tâche boo xamante ne am na disperse kii góor yi fii wala jigéen yi fii dañuy boole yëpp dóorandoo xàccandoo rek. Ah, souvent souvent aussi nous nous rencontrons des dañuy rencontrer ay difficultés parce que jeune chrétien engagé mouvement bi nga xamante ne mouvement de jeunes la donc da day commencer de 18 à jeune à 30 cinq ans donc amul amul amul amul cotisation amul dara donc. ay bienfait ay bienfaiteurs rek des fois participation rek la am parce que dañuy rendre nit service ci service yi on n'attend rien en retour comme donc c' est juste par exemple des familles des personnes de bonne volonté ñoo ñuy gis peut être gis ni action bi peut être lu ñuy def dañu leen di touché ñuy participer au niveau de au niveau au niveau du mouvement parce que des fois dañ koy soxla parce que comme lu nga lu ñuy def c'est une activité bi nga xamante ne c'est donc mooy lu ñuy wax euh, des fois dañuy soxla des moyens financièrement comme matériellement parce que des fois gilet ñu ngay gis ni ñu sol dañ ci am ay manquement dañuy soxla des fois des des des, nga xamante ne peut-être mouvement bi da koy soxla pour juste s'identifier pour yoo xam ne vraiment dañ koy soxla des des matériels des fois des fois nag les gens nous sollicitent wax suñuy besoin ñu wax leen des fois mu am retour des fois mu bañ am retour mais mouvement bi dañ koy soxla des fois entre nous y a ay des fois des malades. bien des cas yi nga xamante ne vraiment famille bi daf ñuy nañu nii ak nii membre bi fa nekk dafa am besoin yi yëg dañ koy bëgg def mais duñ ko mën parce que lu fi nekk luñ fi am lu ne dañ koy partagé en maanaam dañ koy partagé su nekk dañ mooy lépp nga xamante dafa feebar wala dafa nekk peut-être cas bu critique luñ ci mën rek dañ koy participer parce que fii nii lépp lu ñu am rek maanaam te au niveau de l'église participation suñu église donc c'est ça en bref cette année ci dañuy fête li nga xamante ne mooy suñu septième année ci li nga xamante ne depuis ba ñu débuté ci église catholique donc déjà dañuy def dañuy rendre grâce à Dieu mooy ci déjà lu ñu jóge nii mooy mais action de grâce bi ñu jóge ni parce que nous avons l'habitude de le faire depuis ba jeune chrétien engagé commencé ba léegi sa fait sept ans maintenant depuis lors nous avons qu'un seul programme muy suñuy 72 heures comme activité et moom la ñuy fêter chaque année à part loolu nous avons rien en retour parce que mouvement bi day œuvrer dans le social et pour euh, pour l'église tey bés bi nag ñu ngi koy màggal parce que sept ans la ñu wax sept ans d'existence du lu du lu yomb te sept si bible bi mooy chiffre plénitude maanaam li nga xamante ne mot na quoi ñu ngi sant yàlla bu baax di sant suñu premier membre yi nga xamante ne ñoo initié euh, am initiative bi def si seen xar tànk tubéy def seen kékkalaay kattan ba ñu maintenir cap bi ba yenn membre yi nga xam ne dañu leen rejoindre te ni héritage boobu noonu ba tey ñuy fête suñuy sept ans di sant tamit paroissiens Saint-Paul yëpp di sant waa Sénégal parce que gis nañu soutien yi par rapport ak réseaux sociaux yi dañuy gis dañuy recevoir ay message un peu partout te loolu noonu lu mag la si ñun loolu dafay tax bu ñu naroon bàyyi ñu gën a jàpp ñu gën a jàpp di remercier suñu président actuel Jean David moom mi nga xamante ne mu ñuy apporte énergie positif par rapport ak group bi di remercier suñu ancien président le premier président Modou Antoine gisoon nañu taxawaayam si mouvement bi def na fi cinq te taxawaayam durant cinq ans yëpp il a su galvaniser le troupe quoi di koy remercier bu baax di remercier tamit bépp membre ak bépp parent bu nga xamante ne bàyyi na doomam mu ñëw bokk si mouvement bi. jeunes chrétiens engagés seen engagement lu dëggu ci yéen te seen taxawaay rafet na lool. te bu ma juumut seen rafetaayu taxawaay ak seen fulla ci seen engagement tax na ba ngeen wàll ñeneen feneen waaye nag sas bu rëy moo tegu ci seen ndodd sas woowu sas lan la sasu exemple que vous puissiez demeurer des exemples pour group boo gis ne dañuy def ni yéen restez toujours l'exemple pour les autres waaye suñu ngërëm ci yéen day ànd ak ñaan lu baax du mos réer léeg-léeg dangay def lu baax nit ñi duñ ko gis léeg-léeg da ngay def lu baax coow bu ñaaw fekk la ci léeg-léeg dangay def lu baax mais duñ la ci sopp waaye leen téye leen fi ngeen téye. jàpp leen fi ngeen jàpp te ngeen jiital ci ngëm gu mat sëkk quels que soient les vents et les tempêtes vous resterez toujours debout et vous n'avez pas le droit de vous coucher yal na leen yàlla fay seen xolu engagement waaye yàlla itam seen engagement mën ñoo wàll wàll ma man mi doon choriste wàll ma man mi doon scout wàll ma man mi nekk ci yenn kuréel yi te nekk mu fa dara lu dul tur rekk choriste laa te doo ñëw choral scout nga te balaa ngay ñëw fii événement bu mag moo am lecteur lectrice nga balaa nga fi ñëw feet bu mag la foog naa euh, suñu engagement war naa weesu loolu alors maa ngi leen di transmettre reconnaissance su communauté paroissiale bi yépp te yal na bésu tey jur ci yéen ay gracia yu bëri ci seen biir xol ak ci seeni biir njaboot jooyloo ngeen ñu bari bu ñu gisee seen takkute ak coono bi ngeen di àndal bu ñuy gunge suñu mbokk yu gaañu ndaxte nit ñi mënuñoo comprendre ay jeunes ñu toll ñi ci yéen ngeen am seen liggéey seen occupation et même parfois vos soucis soucis quotidiens peut-être ñàkk xëy waaye saa yu ñu leen tàllalee loxo taxaw ngeen te defe ngeen ko nu mu gën a rafete alors lii lan la ciy merci yàlla la bàyyi mu dogal lu ko neex yal na leen yàlla fay car dans votre homélie, vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de multiplication. Par ricochet à l'évangile, où le Christ a multiplié cinq pains et deux poissons. Mais en ma qualité de jeunes chrétien engagé, je vais additionner ces cinq pains à ces deux poissons pour en faire ressortir le chiffre 7. Sept ans que nous sommes maintenant dans l'église de Saint-Paul de Grand-Yoff. Sept ans d'engagement, et je dirais que quelle coïncidence, mais cependant le hasard n'est pas chrétien. Puissions-nous être jeunes chrétiens engagés, de vrais disciples, des disciples qui portent du fruit et que nos actes puissent impacter dans notre communauté et dans l'Église tout entière. L'un des premiers mots que nous avons appris en tant qu'enfants et merci. En effet, cette expression de gratitude est une véritable marque de respect et de considération pour celui à qui nous l'adressons. Dans la parole de Dieu, l'évangéliste Saint Luc nous dira dans son chapitre 17, au verset 17 et 18, ces mots. Alors Jésus prit la parole en disant, Tous les dix n'ont pas-ils été purifiés Les neuf autres, où sont-ils Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Oui, rendre gloire à Dieu devant toutes les grâces, les encouragements, le soutien, les querelles et mésententements. Voilà sept an que nous demeurons sous la protection divine auprès de vous. Sept dans la Bible, frères et sœurs, a une signification symbolique, car il représente la plénitude, la perfection, la puissance, la totalité, la gloire. Alors bonne fête à nous jeune chrétien engagé de Saint-Paul. Gloire à Dieu et merci. Et qu'en ce jour de Jéricho pour nous, que les bénédictions du Seigneur nous donnent la grâce de faire un marchepied de tout ce qui nous empêche d'avancer vers la voie du vrai service du Christ. Je ne peux terminer mon propos sans pour autant remercier tous ceux qui ont œuvré à la bonne marche de ces sept années et de ces 72 heures. D'emblée, je citerai l'abbé Alphonse Biremdou, notre ancien président Antoine Mendy, ainsi que tous les anciens sans qui tout ceci n'aurait pu exister. Le président actuel Jean-David Mendy, ainsi que vous les membres, et tous les membres du bureau qui continuaient le travail, l'équipe sacerdotale de Saint-Paul actuelle et plus particulièrement le curé ici présent, l'abbé Joseph Ning, pour son temps, son ouverture, sa générosité et son humilité. Puissent les bontés du Seigneur abonder sur votre sacerdoce curé Ensuite, nos parrains, nos marraines, l'ensemble des chorales de la paroisse, l'amicale des femmes, la coordination des jeunes, la Caritas, le service d'ordre et d'accueil, de même que le sacristain et ses collaborateurs. Et à vous, communauté de Saint-Paul, une mention plus que parfaite Merci à tous de votre gratitude. Que les bénédictions du Seigneur surabondent dans vos vies et que Dieu vous garde. Merci. de Dieu, pas de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pas du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs.